di wax di ko traité n'importe quoi pour lan loolu ndax lekk kese est-ce jar na ko ah mais moom daa war a wax fàttew ma ko de moom li mu wax pareegul lu bees tàq lay lay ndel ndogu li maa ko wax ci siis anglais ngay faatu <laughs> ah madame man tension da ah, malaaka yi ci ëpp semaine ndigal la ñuy wéy bi gisoo ko mu mel lu xiin. gis naa ko ko jàkk na ko bul taw. damay wax ñoom whatsapp bis bi yàlla sàkk. <laughs> Fatou tey damaa bëgg nga yow sa waañ mu tooy na de boo ko ci ma daal Fatou danga may ree lu bees tàq lay la indil ndogu li eh yow laay waxal waaye yaay eh eh yow laay waxal tontu ma lu bees tàq lay la indil ndogu li <laughs> ma man dama xëy su dugg ci waañ bi fekk fa benn xale bu jigéen mu jël sama tablier bi sànni ko ci suuf ma koy nuyu faalew ma mu tël ma foofu mbëkk ma madame man sonn naa de bu ma bàjjan doo bàjjan taxawal taxawal ma man sonn naa lu bàjjan li plat bu baax la kër bàjjan maa ngi jéggalu de topp damaa rata jaloot lu man sama baat neexul mënu maa way lu bees daa këray lay indil ndogu li comme yooyu palaat yi nee nga yooyu yaa ko togg palaat bi nan la tudd tonton kenn du la wax turam palaat bi maa ko togg fas yu alaat lu bees daa këray lay indil ndogu li dama bëggoon xam nan la tudd tonton palaat bi mhm. fas yu fas yu au salade <laughs> lu bees daa këray lay indil ndogu li ngi def lu bees tàq lay lay indil ndogu yow daal fexeel ba boo toggee ci bool bi di añ wala ngeen di kii ngeen di ndogu rek jéema la soufflé jéema la topp lu bees tàq lay lay indil ndogu benn foot daal nga def hmm. mooy ancien médecin nga may indil ah. médecin yàgg yooyu waaye moom moom nag de médecin <laughs> lu bees tàq lay lay ndil ndogu li ndox mi ngi indi bool bi toogal yow maa ngi nii hmm, damaa jum damaa jum hii Binta namoon nañ la. maa leen raw. lu bees dàq lay la indil ndogu li. Binta. lu bees dàq lay la indil ndogu li. c'est bon ana. Mhm. Mm-hmm. action. mère. lu bees dàq lay la indil ndogu li. day feeñ foofu. est-ce que du na. seetlu bi. man seetlu. kaay xool loolu yow <laughs> de toute façon amul problème yàlla baax na. Tasso daa ngi jooy ah, maa bëgg yëpp wala. Gala moo tax mu bëgg dëppaat. <laughs> lu bees dàq lay lay gis ngeen lekk bu baax ñëpp koy tëw gu ma ko sax charmé gu ma ko sax ah? ah temps yi damay rus rus waaye bu ma ko commencé charmé ci hmm. kër gi mooy temps lu bees dàq lay li lii moom question la rek dama lay laaj ndax te borom kër da da ngeen a tas wala dafa gaañ yow galaay ah. yow loolu lu sëyoo ah damay laaj rek lu bees dàq lay lay indil ndogu li waaye yow galaay hmm. yow lii nga ma questionné ne lu sëyoon mbir la moo tax ma laaj la ko. mbiru mel na. damaa bëgg jublu ci seen mbir rek. loolu nag moom mënoo ko lijjanti naka laay. Ah. wax dëgg yàlla waaye boo tëddee ma bàyyi xel rek. waaw loo dégg rek xam lu bees daa xëy lay ndel ndogu dimbali. xam yaay sama xarit loo ko gis mook faat bu duggee ci waañ bi wala lu wax. mook faat oh, oh, lu nga xam ni ku baax. Oh, naa ko jox. lu bees daa xëy lay bala maa dee boo waxee muy wëndeelu li mel ni innocent yooyu tam. mën nga jaay yàpp jaay jën doog takk doo ci xeeñ. dina sant. dama ah, jàngul nag. lu bees daa xëray lay ndil ndogu li. Binta yow bëri fee ma. ça va. ma dem. jàpp ko heure bi jot na doguli doguli doguli heure googu jot na waaw lu bees tàq lay lay ndil ndoguli yow bu ma su sama papa su taxawee la taan faatu mu wax ko yow ba pare nga taxawee la taan tonton Bella ay bébé Aline lu bees tàq lay lay ndil ndoguli Moussa bu mel noonu Serigne Galla baana baana Galaye Galaye gis nga Serigne Ban Serigne Ban action bi Serigne Ban.